salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi yéen ñëpp ñu leen nuyu di leen jaar waaw vidéo boobu noonu ma envoyé ak photo boobu waa ji tey ce matin à dix heures cinq la dugg sama magasin bi day def envoyé orange money mu nga di jël benn bouteille daal koy wadal may noonu bàyyil ma foral la ko si la ma waree ba jël loxoom dugal ko ci li nga xamante ne mooy sama comptoir soo leen gisee nag vidéo bi taxut a leer mu ngi génn noonu yor benn la porté un sac noir sama xaalis moo ci nekk bu takkoo takku takku aha photo bi leerul vidéo taxut a leer noonu su fekkee ne ay mbokkam xàmmee nañ ko wala yéen waa internet ngeen xàmmee ko nee leen ko vingt-quatre laa ko may du image yi rek laa yor ak vidéo yi aha na ci bàyyi xel bu baax su indiwul sama xaalis dans vingt quatre heures dinaa ko dugal ci internet bi en même temps tamit du yem foofu rek ok wasalaam